waaye salaatu tasbix. waaye salaatu tasbix. ngeen boole ko ci. ngeen boole ko ci. sallallahu alayhi wa sallam moo ni. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni. ku ko def. ku ko def. sa bakkaar yi jiitu yëpp. sa bakkaar yi jiitu woon yëpp. ba ba bés ba nga ko defee. ba bés ba nga ko defee. yàlla effacé na ko. yàlla effacé na ko. am na sax ñu ne ak yi dikkagul. am na sax ñu ne ak yi dikkagul. waaye bee daal wér na moom. waaye daal ba mu ko defee a def boobu moom koy joxe. ba mu koy joxe. di ko bi kilifaam ga. di ko jox kilifaam ga. way juróom ba. way juróom ba. dëkkoon bi. soo manee. bu jot. bés bu jot. soo bu jot. semaine bu jot. soo wu jot. weer wu jot. mu jot. at mu jot. soo manul. soo manul. fukki at yu ne. benn yoon ci sa dund. benn yoon ci sa dund gépp ko ci def. muy salaatu tasbiha ko mënoon nga set ko man bu jiital def def ko nga bay ci mo wato la ci wéru ko na ci wéru ko wax jëf yi ndax jëf yi ngay demee kaaba ga tey ngay demee kaaba ga tey rakka bu ne rakka bu ne ñu ne la ñu ne la day tolloo day tolloo téeméeri junni rakka téeméeri junni rakka noonu la jëf yi di màggee itam noonu la jëf yi di màggee ci temps yi ah waaw mais ci temps yi ni jamono ju mel rek noonu la jëf yi mel fukki fan ci ci muharram wéer fukki fan ci muharram ci zul hijja ci zul hijja ak weer wii. ak weer wii. ak guddi ju guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ak guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. guddi juddoom. guddi juddoom. mooy ñooy temps yi gën a mag. mooy temps yi gën a mag. ak bisu àjjuma. ak bisu àjjuma. kon. kon. waay man rek. lu waay man rek. moo xam yaa ngi ci waañ wi. moo xam yaa ngi ca waañ wa. moo xam yaa ngi ci marché moo xam yaa ngi ca marché la. sa lammiñ saxoo rek. na sa lammiñ saxoo rek. tudd yàlla. di tudd yàlla. astaghfirullah astaghfirullah. astaghfirullah astaghfirullah. salaatu ala nabi. salaatu ala nabi. la ilaha illallah. alhamdulillah alhamdulillah. bu baax a baax bu baax a baax. loolu daal mooy kaddu yi. mooy kaddu yaa ngi jërëjëf si. salaat tasbih salaatu tasbih maanaam euh, ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee. ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diglee. da fatiha ak saar. allahu akbar fatiha ak saar. taxaw. بسار بجيفه بسار بجيفه وروح روح سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اله الا الله والله اكبر والله اكبر فك الجرم لا ما فاهم تتغوى بجك بموقف تجرم سبرك لا وقف فكيون وقف فكيون سجي لسمع الله لمن حمده وقف فكيون وقف فكيون وقف dëpp suñ dem suñ suñ la. wax ko fukki yoon wax ko fukki yoon. siggi toog. siggi toog bay la sa jotee ni. wax ko fukki yoon wax ko fukki yoon. su jotaat. suñ jotaat suñ la ñaareel. fukki yoon. fukki wax ko fukki yoon. siggi. daan siggi di jóg doo jóg doo jóg. toog ah, da ngay toog. wax ko fukki yoon wax ko fukki yoon. soo ko jóg. daan di ñoom kenn jóg. muy 75. muy 75 di juróom ñaar fukki ak juróom. su fekkee am na ñoo xam ni nag. am na ñoo xam ni nag. suñu suñu teree Fatiha ak saar ba pare. suñu teree Fatiha ak saar ba pare. dañ koy def ñaar fukk ak juróom. dañ ñaar fukk ak su ko defee ñaareelu sujjóot ba. bu ko defee ñaareelu sujjóot ba. soo siggee. soo siggee doo toog. doo toog da ngay jóg. da ngay jóg mooy mooy mooy. Ah. moo tax léeg-léeg nit ñi dañuy dañuy réeré waaw. am na ñoo xam ni. am na ñoo xam ni. suñu kàmbaree. bu ñu kàmbaree. indi indi tasbihat yi indi tasbihat yi fukki yon fukki yoon tari fatiha ak sar tari fatiha ak indi wat tasbihat indi wat tasbihat tasbihat fukk ak juróom minyak ak juróom muy ñaar muy ñaar fukk ak juróom mu sogo mu sogo continue mu door ko nak ba bobu ba bobu ñaareelu sujjot ba ñaareelu sujjot bo sigé bo sigé do tok do tok ko xolay jog da ngay continue jog taaw ah man ngay def ci ñu rakka bu nga def ci bu mu so paré nak so paré nak nee nañu soo ñaanul. boo ñaanul. yàlla daf lay mere. yàlla waaw waaw. bàkkaar yi moom jéggal nañ la. bàkkaar moom la toog ci baaxu yàlla. ci baaxu yàlla.